أحببت en el jëf ji la jëf joo xam ne si sëñ bi moo ko dilli woon sëriñ Ismaïla surtout imam surtout imam moo ko dilli woon pour ñu def ko di ko indi fii nii ci xayra léegi da nag gis nga moo nekk matériel yi defar nii bisaab yeeg sëñ bi jox ñu ndigal ñu ko fii dafa nekk mbir moo xam ne sëñ bi mi ngi wax ne da koy def ngir euh, jëmi weeru koor yi ndax wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne maanaam euh, joxe jox nit aw ñam ci weeru koor moo gën tabax ju junniy jàkk rawatina koo xam ne ba ngoon kon loolu ah, waaw mbir yu am solo la xam ne sëñ moo ko digloon ku ñeex ko sëñ bi nag dafa bëgg di ko ubbi muy yaatu chaque année muy gën di di tuxu di jàll feneen ngir bëgg eh, dafa boole ñaari ñaari daayira daayira soppe sëñ Saliou ak daayira mu fàttu bi si ànd liggéey sëñ Touba bu Touba Sura moom la booleeg eh, ànd liggéey bu kii bu xayra eh, association bi ne xayra sopp bi léegi ñoo dajaloo ànd liggéey li lépp daal di dajaloo ñun ñëpp ñu nekk benn taqaloo jàppante nek ay ay ay xarit nga xam si déwénee gox buñu dem tamit suñu agge association buñu fekk wa daay buñu fekk ñun ñom lañ koy andal ñu bol lepp ñu liggé ko ñu séddale ko jaamu yalla yi loolu rek moy nek nga xam bi nga xam ni señ bi moko jëlon moko moo ko jëloon ci mbir ci lu melni nii tax kon dal ñii dal lañ ko défé ñi lañ ko défé té ñaan tamit waaw ñi daayira bi ñu ko àndal ñoom ñëpp ñu dajatee ngeerum señ touba liggé bi nga xamante ni sëriñ Ismaïla mi ngi koy def ñu and ko mom ñun wa daayira ma Faatuma Bisri dañ see gis sëriñ Abdou Khadir moo tax ñu am yéene cofeel ci moom lool ànd ko moom te sëriñ Abdou Khadir ngir gis si moom nag dafa nekk ñu koo xamante ni dañoo defal lu bëree bëree bëri li ñu sëriñ Abdou Khadir defal mënuñu koo fay euh, ku ci nekk boo ko doon laaj loolu sëriñ Abdou Khadir defal maanaam yaakaar naa lim lay wax dana yéeme lool wala mu wax loo ko sax dana jafe Mahila Mbacke doomam lañ ci wax kon yene ji nga xamanteni amna ko fasiyene ko liggéeyal maam ju tedd ji yalla nañ ko mo moom commencé ko si bisimilah rahim àggal ko si rabbil alamin yene ji mu am na ko liggéeyal sëriñ Tuubaa it yàlla na ko commencé bisimilah rahim àggal ko si rabbil alamin ñu and ko mom lepp lo xamanteni ne ni ngi ko séen suñu baax rek ñun ñu seen ko sul baax yàlla suñu doon defal ndimbal serigne touba ñu and ko mom si bisimilah rahmaan rahim àggal ko si rabbil alamin lepp lo xamanteni ne nañ ko yalla it dem nañ ko addu serigne àggal sëriñ Saliou wasalaamaaleykum nag ñu ngi fii ci Touba Mbacké soo waxee tubaa nag di nga wax euh, dëkku Xaadim Rasul euh, Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ñu ñaan yàlla yàlla nu yàlla taas ci barkeem yàlla nu yàlla taas ci barkeem ñu nekk ay bi Sëñ Bamba te di ko gën a nekk ba fu ñu mënti nekk ñu di ko liggéeyal mu nekk sëñ Ismaïla Mbacke mu sëñ Modou Abdou Khadir Mbacke at mu jot nag mu di ko def di jël ay bernde di ko bernde ci weeru koor wi nga xamante ni maamam ju baax ja Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul noonu la ko daan defee bu weeru koor musaana jot day woo dajale mag ñi kenn ku ne mu di la jox ndogu tey nag mu roy ci loolu waaye roy ci waajuram bu baax ki nga xamante ni mooy sëñ Abdou Khadir mom tamit danako na ni waye seigne Abdou Khadir wa waa juróom moom ju bax ja mom tamit danako na ni motax mu roy ci loolu ba tax tay mu dajale mbokki taalibe bi waye mu dajale it ay mbokki bopam ñi nga xamanteni ñom la bokkal seigne Touba waye ñi nga xamanteni mom la ñom la bokkal seigne Abdou Khadir ñi nga xamanteni ñom la bokkal kep ko xam si ne yaa ngi sox ko ci seigne bam rek mu bokkoo mbokam yoyu tay ñew fi eh, fi ci khayra fekk ci ko fi muy amal ndogu yoo xamante ni yaakaar kep ku fi daj rek wala ku gis sun image rek xam nga ni tay ji ki xawle koku moy deret seigne Touba kooku mooy ki nga xamante ni maamam weeru koor ñëpp xame nañ kook moom taal fa kàlla macha allah moo tax tey nag. Ismaila nag deful lu dul dégg li nga xam ne mooy njàngalem sëriñ bi sëriñ Touba moo wax ni yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhaban bil adadi sëriñ Touba moo wax loolu kon ci alquran yàlla wax ci ci ci weer wi ci laa wàcc alquran ci guddi gu màgg gu tedd. tombe nak liggéey bi nga xamné ne sëñ Ismaila mi ngi koy def mu tombe ak guddi gogou kon sëñ Ismaila dégg na alcorane wayé ci biir aaya bi amna ci aaya bo xamné ku ne xamné ni boko jëfëndiko boko déggé jëfëndiko nga al infaq fi sabilillah muy masalul ladina yunfiquna fi sabilillah ila akhir aaya bu ko tab may won ñu décoré ko bam mu leer ngeen xam seigne Ismaila limi def defuko ci ak làmbatu waye ci xam-xam lako tek ndax lan sëtub Serigne Touba la ta durriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu kon seigne Ismaila làmbatu limi def ni lako baxo at mu jot inshallah taala dina dem ci ay gox yu fasantikoo ci bir dëkk bi ta wute lol mu def fa yu melni ma sha allah te diko baril nak te wax deug yàlla sëñ Ismaila limi def man nani deug la fi ci bir Touba. Euh, am na ci ay gox yoo xam ni yitte woon nañu ko lool kon bu ko defee fi ñu ko war a defee macha allah duñ def lu dul gërëm ko ndax euh, dafa yóbbaale mën naa ni ñu bare bari ñax euh, joxe ñam am na ñoo xam ne seen seen yéene la seen itte la. te sëñ Ismaila li ko gën a ñor ci kaw suuf mooy faj aajoy jaami yàlla yi moo tax lu mu am da koy génnee bokk ko ak ñëpp bokk na ci li nga xam ne sax ci la ma gën a neex ci li muy defal jaami yàlla yi mooy dara jaam ji ko yàlla dimbalee. da cee tabe ba ku ko yàlla booleel dana la ci jox ba mu doy sëkk laata nag mu la jox ngay lekk laata mu la jox ngay naan dana la njëkk ak yi ci boppam ba nga ñeme ko ba lépp lu la jox danga ko mën a jëfandikoo te dana la kon bu ngeen ñëwee fii eh, tey jël ko fas ko yéene wane référence la bu ama am solo boo xam ne ku mën na cee jàngati lu bare bari te eh, liggéey la boo xam ne it liggéey boo xam ne du du du du sànku jëf la ju dul réer ndax yàlla moo ko wax ku ne xam ne ne jullit dëgg eh, nii lay dundee nii lay doxee. ba ci aaya boobu muy wax ni jullit wala mer euh, bokk na ci euh, yi muy melo mooy da ngay génn ci sa ñaq di joxe mooy aaya boobu wax innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum euh, ba ci ba ci ba aaya ba jeex dégg nga mu tegaat ci alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna kon xam ngeen ni lii alquran la sëñ Ismaila kon nelawut macha allah kon ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal bu baax a baax. di rafetlu bu baax jootaay bi di nuyu sëñ Ismaila ak mbokk yi teew ñëpp. ñu ngi leen di nuyu di am mbégte bu baax ci jotaay bi di rafetlu bu baax li nga xam ne moom la sëñ Ismaïla woote di loo xam ne lu mu yàgg a def la di ko def ci ay gox yu fasantikoo wax dëgg yàlla muy lu rafet loo xam ne euh, la ay maamam nekkoon rek ci la nekk wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal waxtu wu nekk mu koy euh, yàlla di ko kàttanal mu gën koo mën a taxawee euh, li nga xam ne it yàlla boole na ko ak lenn ci waa kër Sëñ Tuubaa yi mu mu mu mu mu yàlla may ko kàttan ba mu gindi leen ndax it wax dëgg yàlla nit la koo xam ne ku ñu yàgg ak moom la ñoo bokkoon nekk ca Mauritanie daan fa daan daan fa jànge mm-hmm. te lu baax rek lañ xamoon ci moom ak bëgg nit ak joxe aw ñam mm-hmm. loolu moom la ko ñëpp mën a seereel mm-hmm. loolu it moo waral suñu jotaay fii ngir feddali kóllëre gi ak mbégte muñ ci am tey di jëf joo xam ne da ko def ci fi mu ko war a defee muy weeru koor ndax bu fekkee ne sax nit kii dafa jëf ci lu dul weeru koor suñu borom bu la fayee benn su ko jëfee ci weeru koor ñaar la lay fay mm-hmm. kon nag ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla kàttanal ak yàlla kàddu yi mën naa bañ a bari sëñ Ismaila jikkoom moo fi nit ñi ndax baax na oyof na wàcc na dara jàmm tollu ñëpp ku fi ñëw rek da ngay fay da fay bor waaye doon lum la lum la lebal mm-hmm. jikkoom nag jikko dafa am solo lool si ndax kenn ku ne am na am na yëg-yëg boo am sëñ Ismaila boobu la woowee nga wuy ko comme ni ko suñu wàddu murid kon nag si darajee di sant mboolem mboolem mi fi teew ñëpp ndax lii lu am solo la ndax woote say mbokk wuy si la lu yombut waaye jafe na kon nag Sëriñ Ismaila bu wootee ay mbokk wuy ko kon loolu daa aw fa yoon wa ay waajuram amoon aw fa maam ji jaaroon moo tax ay mbokk wuy ko kon ñu leen sant bu baax ku fa teew daal am na si mbégte moo xam ne am na fu mu tàmbalee amoon fu mu yem ñu ngi sant mboolem ñi fi teew ñëpp di nuyu kilifa yi fi teew yëpp di leen santal sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee amoon fu mu yem di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaanal si léegi Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa defal na tawfeex weer wi nu nekk suñu borom nangul ñu jaam yàlla yi duñ si defal ak luñ jéggal ñu rëccee ci yëpp si daraje Xaadim Sol asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki talib yi dañ koy tënk rek xam naa ne ndax temps bi mm-hmm. ñu ngi sant rek li tax ñu koy def mooy lu baax lu baax loolu ñu ko taxoon ñu koy def nag yàlla wuy si nañu ci kon kàddu yi cant rek a ci des ndax dañoo dégg ci borom xam-xam ñu ne leel benn mbiskit moo gën tabax junniy jàkk looloo tax ñu koy def te lii day bokk ci liñ naan solidarité mhm. ndax man mën naa toog sama ni xéwal yi di ma fekk waaye am na koo xam ne nii mu ngi ci ëttam jaaxlee lum ndogo wala mu yanu ak njabootam te amut lum lekk. Hmm. te ñun bi ñu sëñ Tuubaa boolee ci boppam li gën a bokk ci ñuy doxal ay mission mooy jàppale julli ji suñ kem tolluwaay kattan ñun waruñoo toog rek lépp ñëw rek ñu yem ci ñu ko ci suñ bopp déedéet dañoo war a solidarité. surtout gannaaw dëkk bi sëñ Abdoulaye dafa waxoon ne ku am pujub neeg muy sa muy sa seere yow mal xiyam sëñ Tuubaa yëpp da wuy si nit ñi nag bu ñu wuy si ñaaray ñëw mooy ki néew doole ak ki am kattan. ki am kattan nag day wëlbatiku gestu ku new doole looloo tax ñu koy def def ko nag ñaari parti mooy benn bi ñu def ko ngir taalibe sëñ Tuubaa yi benn ñu def ko ngir sëti sëñ Tuubaa yi ak wëllëre ak Seex si te ñëpp ñëw nañ boo xoolee ñii ñëpp ay sëti sëñ Tuubaa lañ kon lii dafa neex te day doxalu mbokk te bokk na ci weer woo xam ne weeru promotion la ci lépp lu baax mm-hmm. te man wóor na ma ci yàlla ne sama jaamu yàlla mënuma dugal àjjana liggéeyal sëñ Tuubaa te xam na ne lii la bokk moom moom rek la sëñ Tuubaa rek laa gëm. Mhm. boo gisee xale yooyu ma leen di jàngal ci bokk na ci civilisation bi ñu bëgg a def ci xale yi mooy da ngeen leen a njëkk a dugal seen mémoire yi ne leen da ngeen bala ngeen a doonub jullit da ngeen a njëkk a set ba noppi. moo tax ñu naan du ñu taq du ñu tilim ñun Ahmadou Bamba rek loolu laa ci jublu ngir ñu koy defaale seen mémoire ba bu fu ñu toog xam ne ñoom dañoo dañuy représenté sëñ Tuubaa ci kaw suuf kon dañoo war a doon nit ñu sell kon mbokk yi fi ñëw ak taalibe yi rawatina association takku liggéeyal Serigne Saliou ñom mom cër bi def nañ ko ni ñu ko war a mention spéciale nag euh, waa Mafatihul bisri nga xamné ne euh, xéewal yépp man na ne ñok fi def ak taalibe seigne touba yi ko ci gis rek def na lépp ñak wo bu fekkoon 100 la jël nañ lépp jëbbalaat ko taalibe yi ñu mën cee rawale taalibe seigne touba aljana euh, loolu rek la bëgg man bu taalibe yi duggee àjjana rek sama xol sedd na waaw ta yalla nañu yalla défal lool ñun jullit ñëpp ñi ñëpp bu ma damay joom looloo tax bëgguma tudd. Hmm. ma tuddee rek danaa sette koo xam ne waruma waaye ñi dëkkee Souraak ñi dëkkee Xayraak ñi dëkkee fu ne ci quartier yi nga xam ne dañoo fasantikoo. Hmm. maa ngi siyaar ñëpp di bëgg ñëpp. damay bañ di lim jur na kilifa yi fi toog dañoo bëri samay mag ak samay rakk ak sama xarit ci kon maa ngi sant ñëpp. ñu jéggalu ñëpp nag di sant ñëpp wa salaamaaleykum wa